Kudugu partage, partagé partage. dugg partagé Allez, ma euh, envoyé message m'a invité tey Moustapha moi ça m'a invité zia je t'appelle dans 30 minutes gay yi dit coup di ziar ah ku partagé attends faut que Kudugu partage, kudugu partage. l'ambassadeur Kandiaïlo, Manglésia. Lo ok il a vu le message voilà Nina Diop Hadi Ravenel Manglésia, ou Atlanta ou États-Unis Maggie John taw bi mon bari Bilbao même fi mi Samba Kanté Hein

Euh, Gaye Bambakara nous les y a Abdoulaye Fam nous les y a Adeline Cabral également été <laughs> la été la Aminata Bellamy Anita Jo, Anita le ñu Anita voici les News tontu nañ là. Voici les News là. Anita anak, amul jot xaw ma kañ Anita yow ba jaxate xaw ma kañ ngeen di nelaw Mang lay ziar Pendal Maki MKF ñu ngi di ziar. jaamu voilà Abou si mi ngi euh, euh, voilà donc euh, am voilà Mais leen ma touti parce que am na ñi nga xamante ne ni ma vérifier live bi parce que parfois moom moi lolo. est-ce que gis live bi voilà, gis live ok c'est bon voilà donc ku partagez, partagé ku goût partagé ku partagez, partagé ku goût partagé ñu door a ma jox sommaire bien. Ah. voilà alors donc sama gars yi ginnaaw bi ma leen nuyoo euh, jox leen seen wàccuwaay tey moom dañuy live live bu calme te damay daal di calme dama nekk ci été waaw dama nekk ci damay calme ñu ñu waxtaan jox leen quelques informations euh, xam naa ne ñenn ñi ci suñu groupe fi ma suñu groupe les les gens qui se battent pour la république mo xam ñi ngeen di APR Benno Bokk Yaakaar du manière générale wala ñi nga xamante ni té té dañoo bari nak machallah ñi may suivre té nga xamante ni ñoom ñi ngi ci euh, comme nak la ko mën expliquer ils sont pour la république dañuy sétane wala dañuy bàyyi bama paré sax ñu dem YouTube sétane ko euh, mais ñi ngi ci xex bi donc y a y a les soldats de l'ombre mais ci équipe bobu yëpp groupe bobu yëpp daf ci am ño xamné dañu xawa je dirais pas décourager mais ils sont énervés ils sont ils sont ils sont en colère euh, il faut aussi euh, que tu euh, voilà ok ok donc am na ko ma message may la ma tuuti rek parce que aussi ki mënuma ko bañ a tontu ok inshallah voilà mënuma ko bañ a tontu maa lay ziar mang lay ziar mang len di ziar bu baax a baax Hein, les les les soldats donc euh, aussi du président Macky Sall aussi Marlène ngi di ziar bu hein. voilà donc gars yi euh, loolu dinañ ci ñew parce que il euh, y a deux choses yi nga ne man dama ci optimiste mais j'ai vu que ci équipe bi ñu ci bari voilà donc qui ko noonu et c'est normal hein, c'est normal parfois aussi di nga am yene information yo xamne do partage ko mëna partager ak nit ñi ak enfin même certaines personnes documents, ko euh, mais tey dinaa essayer am luma ma cabaxal waaw dina am luma ma cabaxal juste pour vous dire que ne soyez pas en colère euh, ñenn ñi dañu méré gouvernement bi je vous dis les choses telles qu'elles sont dañu méré état dañu méré gouvernement bi parce que dañ japp ne ñoom mënuñu comprendre ba tey lu Ousmane Sonko nek ci mbedd bi enfin ba tey tëjuñu ko en fait mënuñu comprendre loolu nous avons dit même ci verdict pas mal de choses mais on en parlera on en parlera tout à l'heure donc Gaï, euh, donc la polémique euh, la polémique ça sorti hier sur cette TV également stratégie Pastef parce que nous avons nañ affaire nous nous nous la réaction euh, de Corette qui dit Corette d'ailleurs manko iziar, euh, voilà on était ensemble à Wolf RTS depuis des années et des années mais j'ai connu euh, un, excellent journaliste euh, voilà quelqu'un de qui a beaucoup de retenue nit voilà mais il y a des choses j'ai pas compris la réaction donc de de de Corette Juan Branco Juan Branco c'est vraiment avec naka laa expliquer bu ngeen seetluwee samay bëri wax yépp te actualité bu amee dama ciy ñëw euh, ñu dem ci ba jeex mais est-ce que seetlu ngeen dara man Juan Branco je parle pas beaucoup j'ai pas beaucoup parlé de lui euh, Juan Branco mosuma jël benn 10 minutes di ko ko consacrer samay live Juan Branco même ce week-end bi je devais faire une publication sur lui après dama ci dama ci ma tayal dinaa ñëw ci Juan Branco Juan Branco Juan Branco il est rien Juan Branco man affaire bi daf ma daf ma def cas daal Juan Branco daf ma def cas comment les gens ni ñu ko et tout alors que le gars il il est rien du tout dinañ ci ñëw bu ci kanamee dama doon tayal sa di ci wax même affaire CPI bi pour man passif voilà ils ont tous tout le temps besoin de de ben ben ben yax bu ñuy séñu xam nga parce que ñu tok non duñ def dara pour man c'est ça quoi pour occuper l'espace mais nekete, ils sont, ils sont, ils sont sérieux les gars, hein. ils sont très très sérieux. Donc, d'une union euh, l'inimel, euh, gagne Dembotouré également son affectation, mais surtout gagne hum, euh, sa sortie

mais dina len wax Mimi Touré pourquoi elle s'agite comme ça di ngeen xam mbirum ONU bi Mimi Touré mo nek ci souf di roubé ndekaté ndekaté mom la ndax lan di ngeen ko xam bu ci kanamee touti gaay yi euh, donc buñ ci jógee euh, dinañu également am comme euh, comme comme invité mais le ma dinañu am comme invité Moustapha Diakhaté donc Moussa Fadjarate, je donc invité Benno Bokk euh, donc euh, won qui euh, parlementaire groupe parlementaire à l'Assemblée nationale voilà alors alors sama bëgg vidéo donc sama gars yi ñu commencé d'abord par la polémique Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck kañ la ko wo, defe barki dembu. non dembu def le le matin deme deme dama gis émission bi moo ma ak euh, Pam Ngeen Ndiaye ga gars yi commencé ci wax Pastef ah man de ni ma Cheikh Yérim Seck wax dëgg neex yàlla il va réagir il va réagir et puis ça, les les gens sénégalais nous ñëpp xam nañ ni mu demee xam nañ ne xam nañ ni mu demee xam nañ et tout il a utilisé la métaphore mais madame Bétibir, ba ci biir que ces gens là ils sont sérieux parce que capacité manipulation bou bou bou bou bou à c'est incroyable c'est incroyable mais j'ai appelé ma oo oh, Yirim Yirim me comme que mais Yérim yow ya yàq say wax midi midi 5, mu defaraat quoi Yérim faut sortir Yérim foog nga génn woon leen sa bopp après nag si laa gis ne xam naa c'était prévu mu war a génn cette TV rajaxe nga cette TV c'est Cheikh Yérim Seck ba mu génnee euh, waa Pastef delloo nañu avance parce que ñu ngi naan euh, euh, waa Pastef gars yi génn leen foofu Cheikh Yérim Seck c'est pour nous divertir parce que ñoom bu ñu ñamee mu metti ñu xam ne fii du dem dañuy reculer ndànk waa Pastef noonu leen mel kon nag ñu ngi delloo avance Cheikh Yérim Seck fa mu bàcc démb faut métti gars yi ñu ñëw ci stratégie bi euh, Cheikh Yérim dafa ne à chaque fois dañuy gis ñoom un Diop ñun ñi ñëpp dañ naan force reste force reste à la loi voilà donc voilà ça dit dire que état dafa être a wone état l'état doit rester fort à chaque fois mais li li Cheikh wax mais c'est en fait ça c'est uniquement ça état l'état doit rester fort force reste à la loi mom le teunk ci métaphore njëkku ko wax sen TV ni ni len man nekk moom pour diko défendre mais man fu nek ni mom dina ko également ci pot le le le l'acteur pot pot des marichou pot dinaa wax ci mom c'est mon frère ñu diko ko caxat donc li expliquer mom moy il faut procès am procès Ousmane Sonko foog mu am c'est pas parce que Ousmane Sonko jàpp na c'est le chef de l'opposition c'est à voir Amna na Sénégal amna ñuko ñu que mom bu joté ak nit lu ko neex moy am Sénégal ken waru ko yobu procès mu né lolu état bu Sénégal waru koo seetaan waxuma sax ay président Macky Sall état bu Sénégal waru koo seetaan un un état doit rester fort pour pour pour pour en fait pour mu utiliser une métaphore pour vous ni l'État ne doit pas reculer devant qui que ce soit. Que ce soit Cheikh Yerim À ak tu donnes, l'État ne doit pas reculer Mouni même tay bu ñu doon nous ñun ñëpp sax 90 sénégalais dé 10 et dundu. nañ na 90 et des, mais il faut procès bi am pour vous montrer que ni l'État ne doit pas reculer il n'a pas dit que Cheikh euh, euh, euh, Sénégal nañu rey 90 sénégalais non dafa faut que état wane dolem parce que bu ñu bàyyee lii jàll ça veut dire que état amatul en fait état amatul kon tey suba suba suba n'importe quel politicien kenn la kenn ku am daraja mun na ñëw ne lii moo ma neex Sénégal nii lay nii lay demee c'est uniquement ça wax na ko seen TV jamono yooyu kenn kenn waxu ci les gens ils sont ils sont passés à autre chose mais waa passé. c'est comme li ñu li ñu xewal nii CPI ak tamit Juan Branco képp kuy seen noonu ñoom seen i dañuy essayer xol ay vidéo wala loo munti wax ñu ñëw nee na dañ ko jox wuu yooyu yaay Juan Branco pour yobu ces pays seeni non, dinañ leen jema a motif pour mën leen a yàq te duñu abandonné mukk duñu mos bayyi duñu mos bayyi c'est tout simplement ça la machine la machine de guerre la machine de manipulation intox bu euh, euh, euh, Pastef nek nak en marche mais man pour man c'est tellement évident ce qu'il a dit c'est tellement évident mais quand j'ai vu correct le communiqué de de euh, euh, euh, correct man a fait daf ma parce que c'est évident le fait que Pastef moui muy ak gars yi réagir à c'est une bonne guerre parce qu'ils ne le supportent pas parce qu'ils sont en guerre avec Cheikh Yerim ils ont une liste de personnes et de personnalités au Sénégal ils sont ak Ousmane Sonko ils sont en guerre avec nous. pourquoi Corrède est-ce qu'ils ont vraiment regardé l'émission j'ai pas compris Corrède je pense que n'était pas un problème à balaa communiquer mais Mungo a pour amener les deux versions j'ai pas compris encore une fois critique au mot Corrède Qui ko que c'est quelqu'un que j'ai connu entre temps les années sont passées mais coucou coucou dal euh, un excellent journaliste mom la xam sama m'a yi c'est injuste c'est injuste donc correct suma mon wal fadjiri ci lu ñu nekk ci yoon bi ñu wal fadjiri ngay xol yenn émission yi ba ci site internet yi yo xamante yi ay journalistes des gens mais vraiment c'est des journalistes et la ñu y di une sortie, il y a en tant que journaliste et même va dire direct. comment ils ont traité l'information le 1er juin nga plateau que des chroniqueurs tous on connaît leur acquaintance avec Ousmane Sonko Loulou, Loulou, Loulou, Loulou, ça un secret Il y a des gens, des journalistes, on connaît leur acquaintance avec, Ousmane Sonko. ce n'est pas un secret mais pourquoi pourquoi cette hypocrisie là au Sénégal dangay gis l'une ne et ne dajji du ci des choses yoo c'est évident mais pourquoi dimanche passé j'ai lancé un appel euh, correct ne il faut ngeen jël c'est une responsabilité comme ni ko du gouvernement yu waxee am na foo xamante ni correct ak ak ak ñenn ñi sikk euh, euh, presse bi nañ ko avant sax état de sévir je ne trop ci correct mais dal man sama vraiment daf ma jaaxal lolou mo tax sa lolou tax Je parce que ne je sais que il va réagir je sais que il va réagir à réagir na ndax Juan Branco Juan Branco amna détails ne au Sénégal duñu comprendre parce que fi dafa am réalité milieu média politique dafa am yeneen réalité té mo duggee ci yenn détail yi Juan Branco yenn nit da ngeen di réer mais Juan Branco il a dafa bind ben livre livre bi amna succès deug la ci livre bi mu xas ci ñu bari Juan Branco ben ben xalé bu goor bu ignane bu aigri la Juan Branco amna ci entourage du président France Emmanuel Macron des jeunes comme lui ño xamné ño bokk génnee ben école ñooñu ñu am benn cursus boo xamante ni c'est-à-dire dañu évolution bu graw lañu am promotion bu graw mu iñaan na ko dem banan diw dafa def manam promotion canapé et couche pour c'est-à-dire ay affaire yu ay affaire yu salté ay affaire de des histoires tellement trash non lañ xamé Juan Branco Juan Branco nekkoon na avocat euh ki jiite Wikileaks ah, yàggu ca nag mais daf ko jël daf ko arme daf ko lu lu rëy moom ñaari fait d'arme la am mooy euh, li mu nekk ak it euh, Juan euh, Assange Julian bu Wikileaks ak li mu sësee woon rek waa waa waa waa gilet jaune ñaar yooyu fu mu dem moom lay nettali mais parcours am gisuñu lu Juan Branco cest dire man man damay tayal di wax ci Juan Branco Juan Branco média yi depuis ci problème bi mu amoon ak Benjamin Griveaux Benjamin Griveaux beaucoup dugg ci détail Benjamin Griveaux dafa bëggoon nek maire bokku ci jege ñu ñu Emmanuel Macron ñu tégal ko benn ndëgg sërax benn piège benn benn benn benn benn française étudiante ak benn russe activiste mu nek un avocat Juan Branco lolu aussi mu am buzz ci média yi mais depuis lors Juan Branco il est tellement, il est marginalisé en fait. Même si médias, on l'invite plus comme avant. Les médias, les vrais médias, invitaient une Juan Branco. Il est rien du tout. Les gens histoire bi habillés, ko nar a profiter pour moi, it mu ca justement Juan Branco dafa beaucoup problème problèmes. nga des problèmes. wax ma ne qui non non non Yérim moo moo laal fu la la Juan Branco moom dafa de problèmes on l'accuse de viol que tu ay touch, touch. cest c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est tellement il est tellement être dans la merde tellement excusez-moi du terme c'est-à-dire il faut que je me calme c'est-à-dire c'est quelqu'un euh, il est tellement prétentieux arrogant aigri mais le dafa def venir. toutes les portes lui sont fermées instant béni en France bugguma dugg ci yenn détails même sur sa vie privée bugguma ci de dal mais daal jàpp leen ne Juan Branco wax dëgg neex yàlla en France Juan Branco il est rien du tout dal cib cib gàttal yi ngeen koy may succès yi ngeen koy may succès ces pays man dama laajte man la mais Juan Branco je pense que je le suis sur Twitter chaque instant dafa mel ni Juan Branco encore Twitter waat mingi ni il a encore tweeté Simla Sala Juan Branco tweeté na sonal na Madina, Dina Dina, Dina, dina Twitter euh, euh, Juan Branco Juan Branco CPI pays c'est pas de la Ces pays, quelque chose de grand mais n'importe quoi moo le di Sénégal on n'est pas en guerre ça m'a je sais que ni nous ñuy top, Ousmane Sonko la plupart c'est comme des moutons je sais que ni jamonoy TikTok lañ nekk Instagram et cetera et cetera sommes cetera ñun suñuy jamono dañ daan dañ c'est-à-dire on on on se battait pour kan nous gën cultiver lu xew nga dem def ay et tout loolu xale yi amatuñu jot Bob, du ñëpp nag mais xale yu bëri amatuñu jot Bob. et c'est dommage c'est dommage am yo yoo ni, ne de manière même générale waruñu toog sax ñu di ko dugal suñu xale yi ces pays ay dëkk yu mel Rwanda ay génocide euh, euh, crime de guerre crime contre l'humanité ay ay mbir yu ces pays ay c'est pas de ay affaire pas li xew sax du affaire bu parce qu'il y a eu des morts mais en 2021 il y a eu des morts 14 morts il y a eu encore des morts mais pourquoi 2021 ils n'ont pas demandé euh, ces pays pourquoi Billon parce qu'il y a le procès Adji le verdict est tombé ces pays naka la ñuy ñëw naan Sénégal nekkuñu en guerre manifestation fépp li am ci àdduna bi di am ay mort dëgg la war nañu ko seytu war nañu def enquête mais fii la kenn lan moo fi xew lu xew ba ñu war a yóbbu Sénégal naa ñu ko yóbbu ces pays amul génocide nekkuñu en guerre yéen gars yi bu wax parce que bëgg leen dofloo bëgg dugg seen biir maayen bi Ferenkulaay fa topp di fa mbalax pour lan ngeen ko di ko nangu mënul nekk bàyyi leen dans leur délire

ci ci ci page Anita la ko jëlee. dafa Juan Branco. xamni ay problème mu boppam kese. kenn xamul nu toll. barki yalla Ousmane Sonko ni day wut avocat. France. tous les gros calibres qu'il y a en France. ña fa nekk ay avocat ni ñu toll ni ñu mel. nga jël Juan Branco xamna tax muy défouler chaque jour muy wax parce que dossier bi daf ko jomb dossier 1000 euros sax xoon banque mun ko am France c'est dommage bis bu ne dañuy tooxal réew mi quoi nga bàyyi tous les groupes ténor di baro enfant jël Juan Branco Juan Branco problème yu am mom ci boppam ay problème yu boppam kese doy ko sët nga ni ngay def avocat kooku gëmewul dossier bi parce que mënu woon xalaat ci àddunaam am dossier bu mel

Ousmane euh, Sonko kii Juan Branco. non man dama ko xaw a yërëm parce que imagine toi xoolal par exemple Mame Mbaye Niang par exemple ni mu amaloon problème Mame Mbaye Niang Olivier Sy kooku c'est un avocat. am na avocat yoo xam xam moom avocat am nañu ko yoo xam ne barreau de Paris bu ñu naroon ñëw Sénégal Macron mooy wooyu Macky Sall na ko tel avocat mu ngi ñëw tel truc et cetera. man je pense que bu Ousmane Sonko di wut avocat ci ñoom kii dossier bi daf ko jomb moo tax gis nga chaque jour xam nga mel muy muy xale buy nekk di devant un jouet chaque jour mu bind tey bind na nee na man mii dañ may yóbbu cour pénal international alors que moom France la dëkk de nekk tubaab France maa ko fa ëpp ay bien maa ko fa ëpp ay xame maa ko fa ëpp ay mbokk maa ko fa ëpp influence tous non dama est-ce que non demal nang demal nang demal te CPE bi muy wax maa ko gën a xam fuuf parce que man CPE dañuy traité dossier yu ma xam ñu bind ma ma bind leen réponse wax leen li ma ci xam ñu jël samay article yu ma bind ci réew yooyu boole ko ci dossier yi interroger ma ma wax leen ko xam na xam ña fa ne bu baax a baax xam grève bi xam ñëpp donc ma bu ñu àndoon CPI moom moo moom laay tëj lu foofu ñoom Sénégal bis bu ne nañu kon ne di ñu toroxal ko té muy dégg Branco na euh, dina dina am dossier bi ñu euh, CPI. Euh, man vidéo ñu ñu ñuy di partager un peu partout j'en ai parlé live j'en ai parlé comme quoi y a des policiers civils les FDS y a des policiers civils également même bu loolu man dama japp ne tay ñom ci seen bop ñom wa Pastef ñom ñoo tok di joxe adresse nit ñi autorité yi euh, euh, ñi leen sonal ñom met radio etc etc. et cetera et cetera seen i seen seen seen adresse seen numéro téléphone même mom il a dit Yérim seen euh, plaque d'immatriculation seen i auto, di dem di tal seen i kër di tal seen auto wa légui léegi ñooñu ci seen bop am nañ droit aussi am ñu len protéger am nañ droit aussi ñoom ñu am ku leen ñu leen protéger am nañ droit défendre également non Pastef nee nañu déedéet ñoom ils font des des des des vidéos ils font des publications de manière publique dem la ngeen taal dem la ngeen attaquer, ñuy taal di attaquer mais ñëpp nañu croiser les bras bu kenn wax c'est Pastef c'est Sonko bu kenn réagir bu kenn fayu nu ñëpp toog. C'est vrai que c'est, c'est en fait, en fait, limotax il faut que je me calme euh, mon vidéo mon vidéo mi yooyu na ko mais xanaa état bu Sénégal am na fulla gu doy nii mercenaires yi nga xam ne Ousmane Sonko jëlee na leen Guinée Bissau ñi nga xam ne jóge nañu dans le sud ñu dugg ci biir manifestants yi di leen di rey ñu arrêté

wa Pastef te ngeen a génn foofu ruku boobu baaxul te ngeen genn fofu fi lañu wax ni ils ont voulu dem attaquer centrale électrique ils ont voulu couper Sénégal buñu amati courant ils ont voulu dem dem également euh, installation euh, ndox mi pour que bu ngeen am ndox mi ngeen nan mais lolu état du Sénégal amna ay argu amna ay preuve pour ci lolu ngeen defane dañuy croiser les bras di len seetaan.

waaw du ma semaine prochaine après tabaski plutôt bind len ngeen ngeen téye après tabaski dina am lu xew té lolu di xew après tabaski mo waral wa Pastef di agité wu di ñammi ñammi ak waa Yewwi li na a xew après tabaski moo tax ñu ñammi ñammi fofu rek la yem léegi nag li nga xam ne la Cheikh Yérim Seck wax demb ci 7TV ci ñi nga xamante ni li ñu naraloon Sénégal li ñu naraloon Sénégal yàqate Sénégal les forces de défense et de sécurité état bu Sénégal taxaw temme ba loolu amut information yooyu mu yor moom la ñu yor moom la ñoom Anita yor ak ñoom ba jaxate ñu bëri yor ko te kon état li mu yor bu ko waxoon àdduna tukki comme ni nga ko waxee te c'est la vérité mais dafa jot nag parce que ñii ñu ko sékkal nekk ñu pas di xaar de Le Sénégal c'est comme la France C'est, côté de côté administration tout est lent mais dans bi contexte bi lenteur la ñu nous c'est-à-dire que temps moo amut nañu def devons yi ni mu ko enquête mais il faut qu'on sorte certaines infos il faut qu'on sorte certaines infos c'est le moment parce que Ousmane Sonko waa Pastef duñ toog ne C'est na que nous devons faire information yi ak les téléphones ont parlé il faut que certaines informations guin man de loolu la gem gaay bu len xadi gaay bu xol sed des choses arrivent affaire yangi bouger te di ngeen bëgg billahi dama mun ta wax ma ñew nak ci Mimi Touré ma ñew ci Mimi Touré live bi tey dafa parce que j'ai tellement envie de parler de donner certaines choses té xamna naa parfois damay tok ma té ma tok rek ba affaire yi ba ñu commencé gis ay affaire man doora a def live mais non non parce que parce que parce que nga guen waxtan ak ak gaay amna ñu ño xamné je sais que c'est important pour nous. je vous le dis on garde le cap bu len mer bu len décourager les choses vont bouger ñenn ñi méré nañu les membres certains membres du gouvernement wala état du Sénégal non non faut pas qu'on soit dur avec eux dédette c'est pas le moment ils font des efforts parce que sorte bi de communication bi baxna ci mais ñom il faut que mu am ben tampon entre nous buñu ñu communiquer ak ak ak ñun ñu nek ci réseaux sociaux yi faut que mu am un tampon ci bi c'est-à-dire que le le petit greffier là le petit con le petit prétentieux là de Ngagne Demba Touré ku mel ni bu génnee di di c'est-à-dire di di di di di jéem a euh, euh, euh, diir mbagg koo xam ne mot na la professeur koo xam ne parcours am du benn ak yow yow nga nekk greffier il paraît stagiaire expérience defe naa un an nga am on t'a tellement pompé nga ñëw ne yaa ngi dékku Ismaïla Madior Fall ñu mel noonu bu ñu génnee pour yàq xelu nit yi tey dama bëggoon génne benn extrait ci li mu wax di leen ko di leen ko di leen di leen di woon manipulation yi mais dama am invité dinaa reprendre sama sama système bobu bu kenn ci ñom génnee dina ko tek di di won benn par benn di leen di di di décortiquer manipulation ci walu communication Tu mel nonu buñu génné génnee waaye commencé nan ak ak ak passif waaw gouvernement bi Juan Branco vous a fait peur le le l'avocat vous a fait peur eh ben la peur c'était c'est seen camp parce que yene a génn rapidement waaye yeewi

ci radio, yek télé site internet yi ñun également ñu devons suñu def suñu li ñu réseaux sociaux il faut qu'il y ait ça parce que ci biir aussi APR euh, euh, ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ñoo xamni je vous donne un exemple euh, la Lyon, gaynde gi met à Sall elle a trop bien communiqué ci la sortie de de l'ONU elle a super bien communiqué mais il y a un ministre man xawmako won sax il s'appelle je pense sous ministre des droits de l'homme je pense mais euh, euh Maïlen Moutouti, je le connaissais même pas. mais kooku ba ba ba ba ministre Aïssata Tall Sall génnee ba pare waroon na moom it mu def sa partition également waroon na def sa partition man dama oo benn juriste bokk ci benn bokk yaakaar mu ne ma mais mais mais mais diw il est plus habilité que man pour mu wax comme ministre bi wax hein? ah mooy mu même ñoom bu ñu waxul sax nañ ñu jox les éléments de langage wax ñu ne dañu war a wax ñu dem euh, ci média yi wax il faut que ñu ñu ngeen rectifier côté boobu il faut qu'il y ait benn tampon entre les membres du gouvernement et les gens qui sont euh, au niveau des réseaux sociaux mo am ñoo xam ñi ngi ci digg bi bu gaay yi génnee rek di xas les membres du gouvernement wala la réaction de l'État mo am ñoo xamante ne ñoom la ñoom ñooy jël la relève bala ñun ñuy balaa ñun ñu ñun également de manière euh, on va dire à côté ñun également on fait ce qu'on a à faire lool kese mo mo dess Mimi Touré balaa may jël sama sama sama invité Mimi Touré c'est comme Cheikh en fait il y a des personnes a le koy def j'ai beaucoup de respect pour nous. Euh, parfois même j'ai de l'affection comme comme ni Cheikh j'ai de l'affection pour nous. ce n'est plus le cas ah Cheikh voilà c'est plus le cas et c'est dommage euh, mais Mimi en tant qu'une femme dans la politique ñun une génération ak fii ñu nekk bitim réew dañu gëm nous boo tu te bats tu tu tu tu tu es indépendante euh, do jomal dara sa bop ñun fi dañu gëm lolu on se bat ñun génération africaine bobu lañu jigen façon jigen bobu lañu duñu dépendre si góor suñu suñu aduna defuñ calquer wuñ ko ci ay voilà on est dañu indépendante ci walu politique d'Afrique de l'Ouest Sénégal lañu soxla femme yu melni Mimi Touré mais Mimi Touré quand je buma xolé ak Sénégal premier juin deux juin liñu doudou, Mimi Touré ngay femme d'état avec tout le respect que li ma lay jox bi ma lay jox yow nga nekk femme d'État, état yow mul meloo comme Ousmane Sonko ndax yow da nga xam luy état Mimi Touré yow doo activiste comme comme comme comme ay Guy Marius Sagna yow femme d' état nga ñun information yi ñu yor yow am nga information yooyu Mimi Touré est ce que yow da nga wara xol yow sa sa sa mère bi nga mere Macky Sall ak wa Benno Bokk yakar ndax sa frustration sa colère de voir un au-dessus du Sénégal nga une grande dame mom la la nga xam information yu ñu am nga xam Sénégal nga pour sa carrière parce que da nga bëgg pour esprit de vengeance ak autres après je me dis

nga yaakaar ni ragal ne dina ko utiliser contre yow loolu moo waral Mimi di agité wu nii Mimi Touré amaguma joxaguñ ma euh, joxaguñ ma amaguma droit wax mais bu dégloo lii xam na ne xam naa te am nañu xam dafa am loo xam ne président Macky Sall daf ko yor ci yow xam ko muy lu wérte wóor nga ragal mu utiliser ko contre yow agitation est-ce que xam depuis trois semaines elle a été nommée conseillère secrétaire générale de ONU c'est tout récent Il y a à peu près trois semaines ah ni ma ko Cheikh Mimi recule hier elle était pas du tout zen pas du tout sereine Mimi Touré coow li ngeen di dégg ci ONU Mimi Touré mooy ruube ci suuf loolu dalañ ma wax tata Mimi ñu ne ma nag mu ànd ceeg Yacine Fall kan mooy Yacine Fall mi ngi biir Pastef kan mooy jëkkëram Jacques Habib Sy Yacine Fall sax mun nañu comprendre parce que Yacine Fall tamit la wokk Mimi moo xuri proche am parce que am na loo xam ne dañ koo am ci ku ko jege lool te bu génnee du baax motax ñom ñaar ñuy agité wu li ngeen dégg ciowul ci mbirum ONU yëpp ñaari femme yooyu la il est 39 foog ma jël sama invité li ñu xam ma bari mais may leen ma ma ma ma def benn euh, ma nuyu suñu papa Robert Bourgi donc je je je fais un coucou à notre papa notre tonton je dirais euh, monsieur Bourgi Robert Bourgi euh, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'affection pour lui. On s'est jamais vu, mais j'espère qu'on se verra donc euh, à Paris. Euh, donc, il est en train également de se battre pour la République, pour le Sénégal. En tout cas, euh, voilà. Donc, beaucoup de respect à Monsieur Robert Bourget. Donc, Gaï, suñu nous ci loolu may leen ma jël Moustapha parce que sinon dina wax ba génne yo xamante ne nii waruma wax may leen ma donc ki nga xamante ne moom euh Moustapha

Euh, ci ay yu am solo euh sa réaction euh, ginnaw la sortie des membres du gouvernement l'autre jour euh, actualité bi fu mu toll instant parce que waa Yewwi nenañu dañu bëgg également euh, euh, génn manam manifester le 25 inshallah à quelques jours également de la tabaski li fi non xew dal une mëna actualité wal Walfadjri également li nga xamné sanction bi dal ci le rôle de la presse actuellement par rapport à enjeu Écoutez, pour ce qui concerne la conférence de presse du et de certains ministères. Très sincèrement, mhm. euh, je suis resté dans ma faim. Sur, sur ma faim, comme on dit. Sur ma faim. Mhm. Mhm. Et à la limite, je, suis déçu. Euh, euh le Sénégal a été l'objet d'une attaque terroriste. Le Sénégal a fait, a fait l'objet d'une insurrection, d'un coup d'État. Et cela avec des morts Mm-hmm. de 16 morts, mm-hmm. et des, dégâts matériels énormes. Mm-hmm. Je crois que dans ce contexte-là, si le Premier ministre et des ministres de, l'Intérieur, de la Justice et de, la Défense, et du porte s'adressent au pays, ils doivent d'abord, un, faire le bilan de, ce que nous avons vécu. Faire, l'état des lieux de cette tentative de coup d'État qui, certes, a échoué, mais il fallait en parler. Deuxième chose, Mhm. Le parti est le responsable politique de tout, de tout ce qui vient de se passer. Mhm. C'est passé et Ousmane Sonko. Mhm. À mon humble avis, le Premier ministre devait faire une déclaration très forte pour dénoncer le, passé, pour les agissements du passé, pour dénoncer les agissements d'Ousmane Sonko et déclarer qu'il y a l'ouverture d'une procédure de dissolution, d'abord euh, de déclarer passé comme organisation terroriste, deuxièmement, une procédure de dissolution de son parti et de l'arrestation de tous ses membres. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est ça, moi, ce que j'attendais de lui. Mm -hmm. Et malheureusement, je n'ai pas, je n'ai pas entendu véritablement le discours mm -hmm. puissant, mhm. ferme, mhm. qu'il fallait prononcer. waaw gars yi nee na nga wax ci olof. gars yi gars yi nee na nga wax ci olof. Euh, waaw. réew réew moo xam ne dañ ko ay terroristes dañ ko attaqué. Mhm. réew moo xam ne dañ fa bëggoon a def coup d'état. réew moo xam ne dañ dañ dañoo yàq alal jurul jeex dal mm-hmm. université dal TER daal BRT mm-hmm. dal ay Auchan mm-hmm. lakk ay oto jàmbur lakk ay oto public réew moo xam ne ak capital ba à la limite à peu à cent bu fekkente ne ngay premier ministre ci réew mooma sooy def conférence de presse bu loolu amee da ngaa war a wax un discours fort discours fort boo xam ne dénoncé ce qui s'est passé avec des mots forts ne ñaawlu ko Ousmane Sonko musiba mii ñu indi ci réew mi. Mhm. dootu fi amati. Mhm. loolu mooy lan en yëpp maanaam <clears throat> ministre de l' intérieur doit présenter un rapport sur les l' implication de Ousmane Sonko et de Pastef ci li xew ci réew mi. Mhm. déclencher un processus de déclaration pour wax ne Pastef c' est une organisation terroriste. à partir de ce moment jël batuwaay yi ñu war a jël pour dissoudre ko. d'accord c'est-à-dire yodal. tu es resté sur ta sur ta faim euh, par rapport à... que euh, voilà. très déçu. Mhm. d'accord très déçu. Il y a Mati le Sénégal a été l'objet d'une attaque terroriste. Mhm. le Sénégal a été l'objet d'une insurrection. Mhm. d'une tentative de coup d'État. quand on est quand on dirige un gouvernement dans le même tu dois tenir un discours fort. un discours de dénonciation et de combativité. Mmh. On a un gouvernement de combat, là où on l'attend. malheureusement, hier, on a eu véritablement un gouvernement de, de, de un gouvernement mou. C'est dommage. D'accord. Euh, les aussi, euh, aussi, nous, on a constaté euh, depuis aussi quelques temps avec cette histoire de, de pays, etc., euh, avec des, des vidéos de nervis, etc., que euh, les médias occidentaux également, dafa mel ni li ñu président Abdoulaye Wade moom la Sénégal ak ak ak le président Macky Sall. Mhm. mën nañ ko bëgg a def waaye bu leen Sénégal ñun ñoo leen ci war a topp. Mhm. parce que li am li am wér te wóor mooy. Mhm. université Dakar. Mhm. ay dér wi taaluñu ko. BR ak TRT ak BRT ak TR ay nervi attaqué wuñu ko. Auchan yi ay nervi attaqué wuñu ko. ay nervi lakkuñu ay tata. ay nervi lakkuñu ay Dakar Dem Dikk. ay nervi woote wuñ mortel combat ba fanweeri nit faatu ci deux mille vingt et un ak deux mille vingt trois. donc Ali Kalaj ji ñun suñu problème mooy. les les terroristes de Pastef ñun ci lool la ñu war a wax parce que ñooñu ñoo taal réew mi waaye gisuma fi foox li ma wax li ma tudd sànq. Mhm. benn niir bi def ko maintenant nag li ma gëmit nag mooy looy wax ne baadoolo du yar morom c'est-à-dire en matière de de maintien de l'ordre mhm. kooku affaire police la ak gendarmerie yoonu civil waru cee nekk. Mhm. waaye li am solo mooy buñ ñu réerloo di wax waxu CPI niñ denc ci tontu. saay saay bi woote mortel combat saay saay bi woote insurrection coup d'état saay-saay bi indi pratique terroriste au Sénégal kenn la muy Ousmane Sonko ñun ci loolu la ñu war a wax kenn war na yóbbaale ci ay affaire CPI CPI mënul kenn dara loolu waxu caaxaan rek la ok léegi yow gars yi aussi nee nañu comprendre ñu lu tax Ousmane Sonko ba tey arrêté vous euh, parce que euh, euh, ils avaient compris au début d'après autorité nous nous ñu comme quoi après l'annonce l'annonce du verdict qu'à tout moment dem après le ministre ça lors de sa dernière sortie nena il faut que nous bàyyi ba jugement bi décision bi nous et nous dix jours pour que a dem téye kii Ousmane Sonko lan ci sa ah dégg naa ko mu naan vision bi daa war a génn bañ notifié ko Ousmane Sonko. Mhm. mu door def am am am délai d' appel bu jugement bi génnee la délai d' appel délai d' na Ousmane ne concerne pas Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko dañ ko biñ koy jugé dafa daw. Mhm. kooku kenn am muy amul délai d' appel parce que mënut a def appel. bu bëgge def appel moom mooy constitué prisonnier. moom mooy constitué prisonnier donc loolu ministère bi doon wax loolu c' est pas du droit pénal. il a dit du n'importe quoi et ça je le dis et je le répète li mu wax du wax bu dul parce que Ousmane Sonko délai d'appel bi concerné wu ko. Mmh. parce que moom pour mu def appel. il faut mu constituer prisonnier c'est-à-dire bu bu jugement bi génnee. Mmh. bis bi mu génnee bu fekkee daa bëgg a def appel day dem constituer prisonnier. Mmh. su boobaa ñu rejuge ko kon encore une fois pour man ay yooyu c'est du juridisme yoo xam ne du du débat bi nekkul foofu débat bi fi mu nekk. mooy Adji Sarr porte na plainte Ousmane Sonko yoon mi ngi def li mu war a def mais Ousmane Sonko dafa def leneen Sénégal. te mm-hmm. fan foofu laay xaar gouvernement bu Sénégal. Mm-hmm. Sénégal ak Ousmane Sonko dafa indi terrorisme ci Sénégal. Mm-hmm. Ousmane Sonko dafa indi insurrection ci Sénégal. Ousmane dafa indi tentative de coup d'état ci Sénégal. rey ay nit faatu fi. alal juru jeex yàqu fi. loolee nag Sénégal la ko def état ko def état doit prendre ses responsabilités. et l'arrêter pour sa c'est pourquoi man comprendre uma keroog bañ ko jëlee bitim ba xam ma benn dëkk bañ ko jàppe woon indi ko di ko yóbbu këram. Mati Fall bu doon yow wala. man duñ ñu yóbbu suñu kër. Mm-hmm. dañuy présenter un juge mu placé nu sous mandat de dépôt. Mm-hmm. inculpé nu loolu lañ ko waroon def mais waruñu ko mu dem waroon yóbbu mu dem kër. finalement lan moo xew. Mm-hmm. Sénégal dañu am ja dañuy dañu foog ne état bu Sénégal dafa ragal Ousmane Sonko. no état mu a ragal nit. mais nag mel na ne les faits mi ngi leen di jox raison le Sénégal est le seul pays au monde. qui est pris en otage par un individu. un pays qui est pris en otage par un individu. Sénégal est le premier et le seul pays au monde pris en par un individu. Mhm. yoo xam ne ci ay fenam ay caaxaanam ci la dem ba rey fukki nit ak ñeent deux mille vingt et un. Mhm. ba dem mu reyaat fukki nit ak juróom-benn. ay milliards yàqu fi ñu kon ñu ko bàyyi muy toog këram. kooku mhm. këram du place am prison la war a dem. Pastef ñu dissoudre ko li may Sonko prison Pastef dissolution loolu la moom la Sénégal war a def waaye leen amul. Mm-hmm, mm-hmm. Légué aussi euh, gis aussi euh, euh, Demba il a fait aussi une sortie justement par rapport à la sortie du ministre de la justice est-ce que c'est parce que communication de au niveau du gouvernement qu'est-ce qu'il y a waaw dama coow coow ndax lan ndax lan. non non dimbali ah ma dimbali ma ngi yàlla yàlla na xam non non. non non non bu ñu bu ñu yàq suñu wax quoi bu ñu yàq suñu wax. waa léegi wa wa waa léegi waa léegi Juan Branco nag Juan Branco Juan Branco nag. Mati Mati Mati Mati c'est le Sénégal qui est agressé c'est le Sénégal qui qui est victime. Eh. Eh. C'est le Sénégal qui a perdu 16 de ses enfants avant Tiffany. C'est le Sénégal qui a perdu des, mm-hmm. mat, des, milliards de, mat, de dégâts matériels. Mm-hmm. loolu mooy débat bi. Mm-hmm. mais ay ay ay ab xaw ma la ab ngóor soosu. ak tubaab boobu nga mujj tudd sànq. très sincèrement man ñooñu seeni wax du ma ko wax man man li ma intéressé ni mu ne nii. mooy matuwaay gouvernement bu Sénégal war a jël pour déclarer Pastef ah, parti terroriste.

dañoo bëggoon dëgg feeñ ci mbirum Adji Sarr ba Ousmane Sonko ne damaa demoon di faju ji te du dëgg. Mhm. dama amul xaalis te du dëgg. Mhm. dama njëriñ naa complot te du dëgg. ba mu lépp. Mhm. ñu bëgg dëgg feeñ. dañoo bëgg dëgg feeñ ci at ci attaque terroriste yi nga xam ne. Sénégal dañ ko ko def dañoo bëgg dëgg feeñ ci insurrection bi nga xam ne Ousmane Sonko daf ko def. dañoo bëgg tentative de coup d'état bi Ousmane Sonko. dëgg feeñ. loolu mooy su war a nekk suñu yitte may ay waxu as ngóor suñu affecté ak benn tubaab xale tubaab bu nekk France. vraiment ñun war nañoo weesal débat suñu bopp parce que nag loolu ña koy def. Mhm. mooy ñi bëgg dëgg réer. Mhm. moo tax ñu bëgg indi coow surtout coow yu ndaw. Mhm. kon coow lu mag sax jar na ko mais coow yu ndaw la quoi. ñooñu nga tudd sànq. ok euh, dernière question moi, le rôle de la presse sénégalaise euh, ci euh, ci ci coow parce que voilà am lu bari lo xam ne jiixi jaaxa na bopp nit ñi par exemple gis nga sorti Yérim Seck képp ko xam mën nga sa que nek borom borom xam-xam li wax on sait que c'est de la métaphore on comprend ce qu'il veut dire mais bon le Pastef bon ñu ngi ci sen rôle ñu ñu ñu jëm ko booleeg opinion nationale bi mais correct, surtout correct xam nga euh, nekk entité structure bu sérieuse pour pour presse bi génn di ko di ko di ko di ko di def communiquer ci moom c'est-à-dire affaire dafa jaxasoo daal ak ak ak surtout le le waaw. xam nga ji euh, Mati li nu dal mooy Sénégal mooy damay wax ci ne Sénégal li nu dal. Mhm. mooy askan wuy fenn boppam. Mhm. askan wu bëgg bëgg ay fenn. Mhm. parce que ay fenn yi mënu indi ba gis nga France 24 li mu defoon ci mbirum loolu ñu wax le nerf bi. su fekkoon presse sénégalaise dañ ko defoon si jamono ji yëf Ousmane Sonko door a feeñ. Mhm. daañu teel a xam ne un day fen ba yóbbu ko fa. Mhm. deux day fen ñàkk xaalis yóbbu ko fa trois day fen komp kenn complootu ko. Mhm. ñett yi bu ko presse bi defoon la mu war de ba mu leer nañ. Ousmane Sonko bu wootee mortel combat kenn du ko wuy. malheureusement bi mu duggee ci yooyu presse bi dafa am ay naaf ak ñu far. ay parti politique yi am ñu naafeq ak ñu far ak maintenant une classe politique très une intelligence manam société civile borom xam-xam yo xamne mhm. dañu mhm. dañoo ragal wax deug yooyu yëpp boo bolé monu moonu dal li nu dal monu ko tek te nag ma mhm. di bu fekkente ne sénégalais yi wuñu di ñeme ragal wax deug di bëgg di tan tant bayyi wuñ ko lu lu ëpp lii nu dal bëkk demb li upp lu nu dal 2021 dañu vingt parce que gis nga galaju rew moy deug dëgg mooy gàllaajug réew mhm. dëgg mooy gàllaajug nit mhm. malheureusement na Sénégal de ba Sénégal yi fenn wu leen neex mhm. moo gën gënal dëgg gu leen di jariñ problème bu nu daal foofu la jóge wax dëgg yàlla yi fi Ousmane Sonko yi première journée bi keroog moom ni jëkkee ne mus ma xale bi balaa mu dindi ko ne dem naa fa keroog la wax a jeex ñu ne ko mbër dinaa tàmbali nga wax ji ak i fenn kon demal tribunal loo am jël may malheureusement ñu topp ko muy fenn ay ay yu faral société civile bu bu bu farata ragal. ak mhm. politiciens yu médiocre. Mhm. yëf dama dem ba indi ba mu indi Sénégal. Mhm. ma lool nag li ko li dindi bokk na ci rek. Sénégalais ñeme ñeme dëgg di wax dëgg te ñeme ñu di waxante dëgg. ah macha allah en tout cas maa ngi lay di la sant ñu bàyyi la nga nga nga nga conclure. waaw ci may kii rek mooy problème mu Walfadjri xam nga wala problème Walfadjri sama position est claire. pour man la ministre bi nga xam ne moo suspendre ligne bi amu ci sañ-sañ. Mhm. Parce que le code de la presse est très clair. Mhm. C'est les autorités administratives, gouverneurs, préfets et sous-préfets, ñoo am sañ-sañu mhm. suspendre provisoirement organe de presse. pour lan bu fekkente ne day dugalum noonu ci askan wi. day appeler au meurtre. day day màbbal day màbbal état bi. wala day màbbal réew mi ñeenti éléments yi bu amee. préfet ba euh, gouverneur préfet wala sous-préfet am nañ sañ-sañu. suspendre provisoirement un organe de presse bu ñu suspendre. Mhm. organe de presse boobu am na droit saisir conseil cour la chambre administrative. Mhm. encore une fois kon ministre bi il a outrepassé ses prérogatives mais. Mhm. mais. ce que l'État du Sénégal doit faire par rapport au mal que fait le Walfadjri au de retirer sa licence. et de le sortir de l' médiatique. Mhm. parce que amu ci place. Mhm. may ma foofu nag parce que ki wax ni euh, Moustapha Diakhaté man maa ngi koy xam ba ma nekkee reporter bu door a commencé donc dafa yàgg ak Walfadjri dafa yàgg ak ñun Moustapha Diakhaté mii dafa yàgg ak ñun. Mhm. Euh, euh, Mati. si le code de la presse bii bu ñu ko wateeloo ginnaaw yàlla subhanahu wa taala man mi maa tax parce que dama ñëw assemblée fekk ko fa. waa PDS bañ ko wote. ma jël ko. def ay séminaire ak journaliste yi. Mm-hmm. séminaire ak CNRA ñaan président la président Macky Sall ne ko dama bëgg loi bi ñu wote ko maintenant li journaliste bi doon wax. Mm-hmm. dépénalisation ak dépénalisation des délits de presse ñu bàyyi ko ci parce que nag. Mm-hmm. Sénégal mënu am ñaari Sénégal Sénégal boo xam ne bu tooñee. kenn du ko jàpp ak Sénégal yoo xam ne bu tooñee ñu jàpp loolu ci lañ dem ba sama sama dernier acte en tant que député. en 2017 mooy l' adoption. du code de la presse. Moi, je suis un militant de la presse. Mhm. Ouais, ce que fait le Walfadjiri, ce n'est plus du journalisme, c'est du larbinisme en faveur d'un individu politique. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, Moussa Diakhaté. Vraiment, c'est un plaisir à chaque fois. Euh, Amlati euh, Live, merci pour cette disponibilité euh, également. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup vraiment euh, dañu Yag nak ak Moustapha Diakhaté dañu yag ak mom donc du coup remercier bu baax a baax euh comprendre moi bon mom il a sa position par rapport à la sortie du gouvernement la position de l'État hum, je le comprends et je je respecte également sa position euh, respecte également position ñepp ñi may wo ne kontaan ñu pour euh, ci état bi nu muy doxalee ak Ousmane Sonko gouvernement je respecte également mais sama rôle aussi moy euh, par rapport à une information encore une fois, de vous redonner encore de l'énergie et, et, aussi de l'espoir. Parce que ça va savoir espoir parce que euh, presque en fait. Mais j'appelle amna luy xew té gaay neewuñ yacc na yassar amna luy xew inshallah té ñom ñi ñu jakkalo xam nañ amna luy xew également légui nak nénañu dañuy dañuy dañuy dem yor sen cocktail molotov dem ci dara li dama yónnee benn benn extrait ñoom nee nañu dañuy dem taali ji daral yi may ñaan waa force de défense et de sécurité policiers ak gendarme yi bu leen ci bu ci dugg bàyyi leen waa kër Ousmane Sonko yi ak pël yi xam nga pël yi ñoom du ñuy waxtaan ñoom du ñuy négocier ñoom seen jaasi lañ yor pour ay pël yoo xam ne dañoo jóge ci seen dëkk dëkk ba dëkk at ba at la ñëw ndakaaru pour mën a jaay seen seeni xar le 25 ñu war a jege si ci ci tabaski bi. nga war a jaay say xar ñoom ñu ne dañuy ñëw di taal euh, euh, euh, daral daral yi bàyyi leen waa kër Sonko yi ak pël yi pël yi dañoo yor seen i jaas yi ñenn ñi sa dégg naa dañoo yor seen nañ croiser les bras bàyyi leen di leen seetaan waa kër Ousmane Sonko nee nañu senegal du ngeen du ngeen du ngeen di lekk yàpp tabaski nee nañ du ngeen tabaski de bu Ousmane Sonko nekkee ci problème bu xolom neexulee ñun ñëppay souffrir ñun ñëpp la ñuy nee nga ay ay ay lekk xar rey sa xar lekk sa yàpp di barbecue di def ay soosu moutarde ay marinade ak yooyu nee na du ngeen xamp de du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen lekk soos yéen du ngeen tabaski de parce que Ousmane Sonko dafay souffrir Ousmane Sonko temps yi xolam neexut comme Ousmane Sonko seen demi jo xolam neexut Sénégal yéen ñëppay souffrir waa Pastef nee nañu comme seen chef dafa nekk di souffrir. yéen ñëpp da ngeen di souffrir par par solidarité dañ leen di pini kon nag wax jaa ngi woonu wax jaa ngi noonu du ngeen xamp yàpp du ngeen barbecue du ngeen lakk ay lekk ay res ay génnee di def ay marinade ak yooyu du am lekk soos du am sol sa yére bu rafet génn di ñaani ndeweneel du am foofu nak maa ngi toog di len setan ak wa ko Ousmane Sonko ga yi kon maa ngi leen di remercier bu baax a baax di nuyu mama Nafissatou Diallo di nuyu ñoom Moga Morgan Berska, Nana Cissé <laughs> di remercier bu baax a baax Babacar Mar di remercier toute l'équipe ñom Mané toute l'équipe de de de Rewmi di nuyu également le président Idrissa Seck également euh voilà di ko nuyu bu baax a baax a baax hein le chef de l'opposition deug neexul di nuyu sama fans gëj naa laa dégg di nuyu ñoom Nafi Diallo di nuyu waa PDS di nuyu gépp Sénégal gépp di nuyu la majorité silencieuse yéen a may dooleel ñi nga xam ne bokk leen ci benn parti politique di nuyu nag toute la diaspora bu ñu paree ci combat bii ñooy ñooy ñooy rokk sante maay ñëwaat ci yéen comme ni ma doon def dawoon fa woon

Euh, sama gars yi live yi ñuy def nii moo gën a moo gën a simple ci xeex bi ñuy xeex man de sama côté semaine bi nii yépp fii ñu nekk di bitim réew muy man di ñoom baax yaay on a notre vie am suñu liggéey am suñu activité di ko boole ak xeex bi combat bi combat bi du rek ñëw dimanche di live am na yoo xam ne kenn mënu koo nettali mais ñu ngi rëkkanteeg ñoom ci suuf xeex bi dafa métti te dafa yàgg di nga gis ñenn ñi ñu naan du ta door génn def live ci ñoom parce que ñu ngi lijjanti dossier ci ñoom amul ñu du ko live jaru ko xeex bi nekkul ñëw dimanche di live ngeen may gis déedéet toog nii rek noonu def sama kii nii rek ñëw toog def sama robe bu jaune rek ñëw léem xeexuma noonu de moo gën a simple ci li may xeex li may lijjanti cobaraan bi lu ndaw lii ak làmmiñ bu rëy bii bu ngeen ko xamoon may nuyu sama partenaire de guerre ñom Anita nyom sommes gaay yi toute la clique di nous, ñom sommes yaay tous les activistes républicains le combat continue Jamal Jam.